ñu ngi cité Saba nekk ci mbaaw fekk si kenn ci candidat yi jongante ngir jote ci commune bi ci élection yi ñu jëm Badara Lo wuyo wuyoo jiite convergence des force locale bu mbaaw seq nañu waxtaan wu yaa ak moom waaye laata li ko jiitu ay ñoñam moo xam ay am di jàmmam def ay seede ci kilifa gi ñu jàpp ni moo gën ci commune bi tey dinañ def seen kéemtalaay kàttan ngir mu jote ca moo xam financement jëm ci jigéen ñi ba ci wàllu tàggat yaram naka noonu it ñi ko jege xam ko ñoo dikk ci kilifa gii. Badara Lo lu mu mën a wax si moom bari na parce que Badara Lo je crois bien que ne Badara Lo depuis mu nekkee xale bi jusqu'à présent ñu ngi nekk masuñu tàqali ko mu koo xam ne am na fulla am na fayda am na yar en même temps fi ñu ko tegoon jógu fa parce que jàng lañ ko xamee depuis que ba mu nekkee xale ba léegi jàng rek lay def donc yàlla dimbali na ko si ba mu nekkee mu ci génne yàlla def mu nekk koo xam ne vraiment. am na relation jàng na am na ay diplôme c'est pour cela nag ñu ñëw ñu soxla ko daal ci commune bi parce que Badara du moom moo postulé moo postulé boppam mais Badara waa Kamb waa Kër Mbay Fall waa Tool Diaz waa euh, Ridis presque pratiquement ak Jack ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko postulé ñoo taxaw ne ban dañoo soxla candidat candidature Badara au niveau de la commune donc looloo tax ñu pousse à mu mu postulé wu donc ñu ngi ñu ngi loo tax ñu taxaw ci quoi taxaw ci candidature am bu baax nag. élection yi ñu jëm ñu ngi jàppale Alioune Badara Lo boo gisee ñu jàppale ko ñun mbootaay yi ñuy jiite ñun jigéen ñi Kër Mbaye Fall maanaam groupement yi dafa jóg pour jàppale ñu pour ay problème mu financement parce que amuñu ko te fii jigéen ñi ñu ngi sonn coono boo xam ne boo xoolee bu nawet bi ñëwee pour nga génn dem marché sax day jafe. ci taabal yi lañuy ñuy mujj nekk di jënd euh, bu ñu bëggee dem marché dinañ jéggi ñaari pont am na mag ñoo xam ne génnatuñu ndax amuñu yoon yu ñu jaar ñu yaakaar ci moom nag moom mu ñëw dugg ci biir nit ñi di waxtaan ak nit ñi loolu moo indi ñu ñëw di ko jàppale si pour am yaakaar ci moom. waaw de moom wax dëgg yàlla soutenir Badara dinañu dinañu neex trop quoi ndax defe naa on a grandi fii ensemble. joué woon nawetaan fii nii si même si quartier si même localité bi. defe naa aussi tamit euh, kenn ku nekk dafa war a nangu loo xam ne peut être sans borom moo ko dogal quoi mooy que responsabilité sans borom moo koy joxe quoi ji tamit sans moo si nit kenn ku nekk li nga doon sans borom moo la ko teg quoi ba tax li mu doon tamit sans moo ko teg quoi ndax si terrain si laay liggéeyee na ni siy daaw terrain bi koñ ba koñ dafa feesoon dell ndox defe naa yàlla ak moo tax ndox mi jógee fii nii si terrain bi su moom tey jii xale dootuñu am fu ñu defee sport ndax suñu école suñu école def yàlla ak Badara tey jii moo tax tey ñun fi ñu àgg ñu agsi fa yàlla ak moo tax quoi. sensibilisation bi moom mooy que ASC yi euh, mouvement yi lépp ñu ngi si ginnaaw donc instant bi li gën a am solo moom mooy que ñu mobiliser ñu mobiliser ñu mobiliser nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kàmb Kër Mbaye Fall euh, Ridis Tool Jazz euh, kàmb 2 ñu xam kan mooy Badara. sport nag si kuréel commune Mbao defe naa maa si bëgg a yàgg quoi ndax Moussal da Mbao mooy sama club fa laa defee fa par exemple fa laa entraîné junior ba senior di leen di entraîné defe naa diplôme yi ma am tamit fa laa amee fa laa amee sama initiateur am fa sama premier degré mais naa sport si commune Mbao bëri na manquement ndax Mbao defe naa tey modèle boo jëlee modèle Tamba si club yi nga xam ne nii si club yi gën a mag Sénégal si la bokk te ba mu nekkee régional ba léegi defe naa mu ngi bëgg a yàgg mu ngi bëgg a def régional ay ati ati at yoo xam ne peut-être man avant man la woon sax te ba tey moo ngi régional te defe naa club la boo xam ne club bu fañoo la boo xam ne par rapport ak mbaaw fii nii quoi defe naa sport mbaaw manquement bu mu am bëri na trop trop te bu nekkee fi tey di ko wax duñ duñ fi jógee quoi defe naa aussi tamit defe naa aussi tamit defe naa tey boo xoolee tey bu ñu waxee sport mbaaw modèle Tamba da ngay xool pour mun a xam sport mbaaw nu muy doxee quoi mu wóor am na ay manquement yu bëree bëri yu si am quoi par rapport ak loolu. Euh, comme nii formation yi ñuy def moom dañuy ñëw man ci sama jëmm bopp def nañu benn formation ñu ñëw ba ci moom bi ñu ñëwee ba ci moom ñu expliquer ko mu laaj ñu naka la maanaam pour accompagner ñu loolu moo ko tax a jóg di dugg si nit ñi ñu di ko wax seeni soxla macha allah mu di leen jàppale te doon na mais nit koo xam ne. melul ni yenn autorité yi nga ñëw soxla ko fëgg buntu këram ñu ne la demal ba fan yi wala nangam ak nangam heure boo ko fi fekkee da lay recevoir heure boo ko ooyee téléphone xanaa muy jokkoo mais su jokkoowul da lay wuyu. waaw xam ba Badara c'est un fan c'est un fanatique de sport defe naa tey jii tey bu ko yàlla jiitaloon tey mu nekk euh, tey maire de la commune de naa si wàllu sport. defe naa dina bëri trop trop trop trop trop trop lu si lu mu si jëmale kanam quoi ndax man am naa sama yaakaar sama xalaat bu gàtt la ko ndax tey def naa am lu mu def si wàllu sport fii nii si quartier bi ñu dëkk nii il fut président de la SC Jimenga c'est at yu naa nekk na fi entraîneur si équipe bi nekk na fa président si équipe bi naa aussi tamit defe naa lépp loo xam ne fii si sport ñun ne ah ñun bokk alliance foot defe naa ñun tey ji référence si Badara la suñu suñ quatre-vingt-dix pour cent suñuy doxee lépp si Badara lañ ko teg quoi di ay seede yu bàyyee ko ci ay jegeñaaleem ñii fas yéene ko gunge ngir mu jote ci commune ba waxtaan nañu ak moom dikk ca uh, na mu doore li nga xamante ne mooy candidature bala mu yéene commune bi ak it ci uh, lu aju ci wàllu programme am daanaka lépp dikk na ceeg ñun ginnaaw bu mu séq ak ñun waxtaan ñu teew lu ni mel. Uh, salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di yéen ñëpp di leen ziar. li euh, leen wax ni Badara Lo c'est un jeune cadre des finances euh, particulièrement du trésor donc euh, am euh, plus d'une dizaine d'années d'expérience euh, au trésor public donc jaar ci ay collectivité yu bari yoo xam ne euh, liggéeyal nañ leen par l'entremise des perceptions municipales notamment Vélingara aussi Diourbel donc euh, en gros loolu la ñu mën a wax en terme de présentation il y a beaucoup d'autres choses lu ñu mën a wax mais foofu lañ koy tëj foofu lañ koy tëj euh, Badara lan moo motiver sa sa candidature lu waral ba nga fas yéene bu ren ni da ngay bokk ci joŋante yi. waaw question boobu dina ma intéressé parce que simplement ñu bëri ñu ngi posé wu question di laaj lan moo waral candidature bi mais candidature bi. dañu nekk ci moment boo xam ne euh, dafa am solo parce que jeunes yi dañu ndaw réew mi jamono ji toll nii dañu war a participer ci seen développement euh, dëkk particulièrement nag au niveau local donc euh, ce qu'on li ñuy constaté boobu ba léegi dañuy gis ne ne par exemple ci localité yi et dafa bëri jeunes yoo xam ne ay jeunes cadres lañ hmm. am ay responsabilités am euh, un temps soit peu d'expérience am jaar-jaar boo xam ne mën nañu ko faire bénéficier seen localité mais euh, élection dafa nekk li nga xam ne wala politique dafa nekk li nga xam ne gàkkal nañ ko de sorte que nit ñi kenn buggu cee dugg donc ñun loolu moo nekk suñu motivation nekk aussi euh, maanaam benn joxe benn exemple par rapport à mes euh, amis yi nga xam ne cadre lañ de l'administration euh, xam na ne war nañ mën a dugg ci mbir mi et puis seetal ko wane aussi ne ñoom am nañ possibilité apporter benn valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait donc loolu moo motive suñu. justement valeur ajoutée boobu noonu suñ ko wax fii ci mbaaw lan nga jàpp ne la manqué le ak ban regard ngay porter ci gestion wu le maire sortant ba nga jàpp ne ba léegi liggéey bu dee ni am na lum ci def. Mhm. am na lu des. waaw euh, par rapport ak euh, gestion euh, de l'équipe sortante du ma ci sori lool mais je veux simplement dire que ñëpp xam nañ ne y des efforts qui ont été parce que nit du gérer ba pare. ba terminer nga ne ko dara baaxul. waaye jàpp nañ ne wax dëgg fa yàlla bu dee mbir mi egg na ci dix war nañ ko mën a yóbbu ci trente wala ci cent. parce que nag ñun am nañ expérience su euh, collectivité locale. Hmm. Euh, donc loolu permettre nañu bi ñu xoolee situation d'exécution yu xool aussi euh, information yi nga xam ne yëpp moom mooy dem ci wàllu gestion xam nañ ne donc mën nañ apporter un plus par rapport ak gestion wu commune de Mbao. ci yan levier ngay sukkandiku ngir soppite boobu mën a am xam nañu Mbao ni bëri na ay jafe-jafe ko njatt surtout ci wàllu environnement. Euh, dëkkin yeeg dëkkuwaay yi taxu ko jàppandi noonu mu am responsabilité boo xam te ne dafay ñëw ci les élus locaux. Mhm. Euh, pour ne pas dire seen programme axes yi lan lay doon ngir soppi loolu. waaw loolu dinañ ci sawar a tontu parce que simplement Mbao dafa nekk benn commune boo xam ne commune bu am solo la parce que euh, boo xoolee situation géographique am dafa nekk pratiquement à une vingtaine de kilomètres de Dakar. donc ba noppi mu nekk commune boo xam ne dafa am ressource naturelle ndax euh, am nañ fi forêt classée de Mbao am fi la mer ba noppi ñu am chance aussi ay infrastructure de grande envergure jaar ci commune bi euh, mën naa ci citer comme li ñu woowee TER wala la route nationale wala l'autoroute à péage donc c'est des infrastructures yoo xam ne dafay euh, désengorger dafay désenclaver la commune de mbaaw donc wax nga ko léegi ci sa question aussi yaa y a énormément d'usines yoo xam ne dañoo implanté wu au niveau de la commune et sur le plan activité économique aussi euh, mun nañ ko jàppee ni Carrefour la parce que pratiquement mbaaw boo ko xoolee dafa nekk si diggante ñaari euh, pôle urbain muy Diamniadio ak Dakar donc euh, activité économique bi nekk na loo xam ne war nañ ko gën a mën a animer hmm. ba nga xam ne mu jural ay satisfaction Euh, population bi ak euh, ñëpp ñi yeewoo ci commune de mbaaw nuñ koy animer d'autant plus que wax naa ko léegi ni jafe-jafe jëm na ci wàllu dëkkuwaay environnement paradoxalement ministre bi ñu dénk wàllu environnement fii la dëkk euh, nu ngeen koy dundee globalement ak yan saafara lañ ci indi. waaw gis nga ne wax naa la léegi am na ay axes routiers yoo xamante ne vraiment am na fi ci commune bi mais ci loolu aussi ci biir commune bi dans l'enceinte même de la commune nit ñi dañu xaw a maanaam dañu xaw a euh, dafa xaw a am euh, tal maanaam tali yi bariwul noonu. de sorte que soo bëggee jugee parce que c'est une très grande commune quand même donc soo buggee jugee d'un point A dem ci beneen point bi ci commune bi des fois ay jafe-jafe mën na cee am boo dee xool rek euh, mun nañ joxe exemple tali bi nga xam ne moo jugee ci maire bi ci Grand Mbao foofu di dugg ci biir gis ngeen ko boobu ba léegi xaw ma ça fait combien d'années tali boobu ba léegi mi ngi en chantier soo ñëwee fii tout juste euh, à côté de chaine wu aussi tali bi jógee tool jaas dem fële nga xam ne moom mooy euh, rudis boobu ba léegi aussi mi ngi en chantier et y beaucoup de connexions internes yi nga xam ne waroon nañ ko mën a def pour que mu faciliter le déplacement yi parce que bu ñu demee sax ci période d'hivernage pratiquement les routes euh, son sont sont donc euh, côté environnement aussi y a de choses à faire bon wax nga ko fi mais euh, loolu yëpp bokk na si li nga xamante ne ñun euh, ñu ngi ciy réfléchir pour apporter ci ay ay amélioration wàllu suuf sànq yaa ngi wax forêt classée bu mbaaw daanaka mooy poumon wu Ndakaaru mhm. euh, déggoon nañ fi ay coow bu yàggul dara di hectares yi ñu waroon déclassifier muy indi woon coow mhm. dafa mel ni un peu partout ci gestion yenn maires yi dañ leen ci dañ leen ci laal loxo suuf ci sa magistère boo ci jotee ñu ngi la koy ñaanal. Mm-hmm. boole kook li ma wax léegi ak implantation yenn usine yi rapport bi dem seen diggante yeen ak usines yi ci ñaari axes yooyu noonu liggéey bi lan lay doon. waaw xam nga wàllu suuf comme ni nga ko waxee euh, jamono ji ñu toll ni dafa nekk euh, lu xaw a sensible. parce que ki nga xam ne moo détenir suuf si rek daanaka dañuy wax ne moo détenir pouvoir yi parce que gis nañ ne ci dëkk yu bari pratiquement dem nañ ba. ay suuf yoo xam ne dañ ci war a bay daanaka ñoom amatuñ ko ba boo xoolee yenn dëkk yu bari pays développé yi dañuy ñëw ci suñu dëkk yi di jéem a wut ay terre yoo xam ne ay terre cultivable la wala ñuy jéem a tout bonement jënd ay suuf yoo xam ne ñoom daañ fa mën a implanter seen i seen i seen i usine wala seen i seen i euh, seen i wàllu mbay donc commune bi comme ni ma la ko waxee aussi dafa nekk commune bu charnière donc wàllu suuf aussi dafa nekk loo xam ne buñ ñëwee il faut ñu xoolaat ko lépp xool suuf si nu mu tëddee. Mm-hmm. xool déjà délimitation de façon claire euh, bu commune bi parce que euh, yëg ngeen lu yàggul. Euh, li nga xam ne amoon na ci diggante commune bi ak Kër Massar. exact ba pratiquement mu amoon lu ci jotoon génn waaye ñun liñ jàpp mooy foncier bi yëpp de façon générale war nañ ko mën a xool xool réellement lan moo nekk si loxoy municipalité bi ak li nga xamante ne dépendrewul si loxoy municipalité bi lu mel ni fore bi. waaye nan lañ si mën a comme ci commune bi la nekk nan lañ si mën a liggéeyee ak euh, état bi nan lañ si mën a liggéeyee ak euh, département bi nga xam ne mooy environnement pour que ñu mën ci apporter maanaam un mieux-être aux populations sans pour autant nag ñu détériorer l'environnement. Mmh. est-ce que dangay bokk ci maire bu naan bis bu ma faloo xëyu ndaw ñi dinaa ci def euh, jéego ci wàllu cadre de vie également. looy teg ci loxo yi. waaw xam nga ak ci ay innovation oui. xam nga xëyu ndaw yi dafa nekk une question nationale. donc euh, pour man c'est une réponse nationale qu'il faut servir c'est-à-dire collectivité ak euh, moyens yi nga xam ne c'est limité euh, yu ñu am donc su dee collectivité bi dafay gàddu par exemple ne moom mooy régler problème mu xëyu ndaw yi bon loolu mën na xaw a doy waar. Hmm. waaye nag mën nañu. bokk ci li nga xam ne c'est-à-dire participer à la réflexion participer à trouver des solutions par rapport ak euh, xëyu ndaw yi parce que je pense que c'est une solution globale c'est une solution nationale lañu ñu war a trouver par rapport ak euh, question boobu mm-hmm. donc ñun li ñu mën a li ci mën a apporter c'est par rapport aux, aux associations au par, par rapport à, mouvement par exemple nawetaan par rapport GIE yi nga xam ne moom la femme yor ñun mën nañ leen accompagner dans les formations dans la transformation et dans euh, euh, la recherche de de financement donc loolu c'est des axes yoo xam ne ñun identifier nañ ko te gis nañ ne tamit yaa a beaucoup euh, de limites par rapport ak li daan am bu njëkk ba parce que tamit nit ñi ñu am une formation ci côté euh, volet financier de sorte que tey même boo leen financé jox leen xaalis ñu am technicité bi nga xam ne ay transformation yooyu aussi nu ñuy gérer xaalis bi comme bi nu ñu koy gérer ba mu war a mën a bañ ko war a mën a fulandi wet googu dafay des. Hmm. donc ñun euh, dañu compter accompagner leen dans la formation accompagner leen aussi ci financement bi mais surtout bu ñu mettre en place ay PME ñu def en sorte que accompagner leen jàpp leen ba PME yi nekk ay euh, ay structures yoo xam ne commencé na dëgër structure yu viable la. Hmm. donc noonu lañu ñu euh, fas yéene apporter suñu pierre. ci par rapport ak euh, xëyu ndaw yi. souvent dañuy wax yéen cadres yi vous avez de bonnes idées wàllu programme naka noonu mais ci élection yi ci Sénégal souvent dañu naan du programme mooy fal du mooy yi léegoo léeg ci tur yi lañ koy wekk. Mhm. Euh, commune bu mbaaw am na ñu am tur wax naa léegi ministre de l' environnement mu ngi fii mu ngi yóotu. Mhm. le maire sortant Obama xam nañ ko. laaj mooy ndax jàpp ngeen ni am ngeen chance. ngir mhm. génn ci loobu ci local yu ñu jëm. waaw loolu dañ ci sawar a parce que simplement. Euh, d'ailleurs c'est salutaire ñu am euh, autant de candidats et puis am ay candidats yoo xam ne comme ni nga ko waxee ay candidats d'envergure lañ parce que commune bi dafa soxla loolu parce que ci concurrence rek la ñu mën a euh, surpasser woo ci la ñu mën a trouver ay ay ay formules ci la ñu mën a trouver ay solutions pour notre commune. Hmm. parce que nekkul benn benn concurrence boo xamante ne dafa malsaine déedéet. concurrence la boo xam ne ku ci nekk da nga bëgg defar et ku ci nekk aussi jàpp nga ne yow yoon bi nga xam ne euh, ci ci nga nekk mooy yoon bi nga xam ne moo gën a gaaw pour defaru mais loolu c'est c'est c'est juste salutaire par rapport ak euh, pour population commune bi parce que ñoom ñoo ciy bénéficier wu. Mm. Euh, après tout par rapport nag à change chances ñun on a de réelles chances ci ci ci ci élection yi jëm. Mm. waxuma ko pour wax nii rek parce que simplement ñun. dañu am vécu commune bi euh, nekk fi ay années et des années une vingt huit def naa vingt huit ans donc euh, mu nekk vingt huit années yoo xam ne nekkuñu ko rek tëdd di yooyu mais dañu participer au développement diriger fi ay mouvement nawetaan non seulement jouer fi nawetaan hmm. mais di diriger fi association en tant que entraîneur en tant que président et puis participer à énormément d' activités yi nga xam ne Euh, ay activités euh, sociales la ay activités yoo xamante ne population yi lañ ko bokkal di jóg ñoom di di di daanu donc depuis des années donc candidature bi nekkul candidature boo xam ne dafa génn ex nihilo mais c'est une suite logique par rapport ak démarche bi nga xam ne euh, moom la ñu def te yaakaar naa ne au soir du 23 li nga xam ne urne yi dina ko génne dina wane ne c'est une candidature sérieuse sérieuse alors yaa ngi koy wax proximité boobu noonu depuis vingt vingt huit ans euh, sa diggante ki askan wi peut du ñàkk am na ci activité yu la marqué yoo jàpp ni bokk nga ko askan wi soo ñu koy tuddal fii ci commune bi lan la. waa activité yi bari na mais li ma fi mën a citer de mémoire parce que le plus souvent nit ñi dañuy bàyyi xel mooy euh, rapport mercantile maanaam. yi nga xam ne ay diggante jox xaalis la ak yooyu waaye man dafa am yi nga xam ne moo a gën a marqué parce que tey damay fàttali bi nga xamante ne euh, ñi ngi booba temps tool jaas quartier bu ñuy woowee tool jaas amul woon euh, électrification amuloon woon courant donc euh, ñu doon ñu waroon a indi électrification yi ak nos vieux bi ñu waxtaanee ba GIE bi ko waroon a ñëw liggéey donc ñun je faisais partie des huit personnes yi nga xam ne dañ leen recruter woon pour ñu waroon a gas dugal dugal poto yi euh, et puis yéeg ci kaw poto yi percer def ay électrification donc c'est des c'est des moments qui m'ont marqué hormis loolu aussi même kanaal bi nga xam ne tey moom la ñëpp di wax dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo liggéey ci kanaal bi mën nañ fi citer nag ay œuvres sociales yoo bari yoo xam ne def nañ ko mais en réalité loolu ñu du suñu credo parce que jàpp nañ ne lépp loo xam ne dañ ko def rek dañ ko warloog nit ñi parce politique ñun ni ñu gisee politique c'est vrai pour développement wu cité bi la mais ñi nga xam ne say nawla lañ gënoo leen ëppoo leen dara euh, bu dul politique sax dafa am loo warlook ñoom kon jàpp naa ne du teggin ngay am looy jëflanteeg ñoom ba noppi euh, mais nag loolu c'est de c'est c'est devenu monnaie courante parce que léegi da ngay gis koo yëkkati jox ko 1000 francs wala mille sax da ko naan kaay taxaw ñu fotowu ñu wane ko ñëpp xam na ne jox naa la mais ñun yàlla dogal na ne ñun doxewuñu noonu euh, mais nag wàllu politique ci di nga ma wax ni ma non politique du doxee noonu noo def da koy. da koy fësal. mais nag jàpp naa ne les bonnes actions font leur propre publicité comme ni ko tubaab di waxee. Hmm. loolu moo tax lu ñu def rek dañ koy def sans pour autant. attendre quelque chose de manière désintéressée. du ñàkk am na lu ma la woon laaj laaju ma la ko nga bëggoon cee ñëw laataa ñoo tàggoo. Mm. waaw ñi nga xamante ne ñoo lay euh, teewlu ci local yu ñu jëm. waaw donc euh, local yi di wax juste que ne dafa nekk moment bu bu bu bu bu crucial ci tournant la. Mm. tournant la par rapport à beaucoup de chose donc euh, dañu nekk ci moment de choix. choix nag moom dafa xaw difficile. parce que ku ne danaan man la ku ne danaan man la. moom laay wax toujours euh, jàpp naa ne man la man na man la day dina booy ci nopp nit ñi waaye yaakaar naa bu ñu taataanee kàddu yi rek déglu dañ xam fan la parce que nag ñun tamit dañu bëgg une commune boo xam ne mhm. vraiment day am ay infrastructures sportive yoo xam ne comme niñ koy gisee un peu partout am ay terrain yoo xam ne euh, dinañ ko def tere synthétique am ay Badara Lo di ku ràññeeku ci commune bu Mbao ngir ay jéegoom ak it taxawaay bu mu yàgg am jëm ci askan wile ñuy fàttali ni ci yële élection fas yéene ci ànd ak ñi di waa IPD donte nag moo jiite convergence des forces locale bu mbaaw mu mel ni jamono ci seen dox ak seen yitte yëpp mooy fexe ba ñu ngoonuk ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ñu jotee ci commune bu mbaaw jëlee fi ki nga xamante ne mooy Obama te jiite ko donte nag xam nañu ci geneen wàll gi am na yeneen ci ay mbër yu wootewoo ni fas yéene nañ jote ci bile commune moom ba dara loo yemu ca jamono ji mu ngi ci ay porta à porte ak it ay visite de proximité yu muy amal ak ay naataangoom naka noonu ay militant fu ne ci mbaaw ak li ko wër. loolu bëgg nañ aussi doomi mbaaw gën a jël euh, maanaam ay responsabilités par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, échiquier national nationale waa parce que la commune de Mbao c'est une commune boo xam ne bu bu bu bu bu yàgg la commune la boo xam ne dafa mus a am taxawaay donc tey waruñu des ginnaaw gis nañ ay géejawaay ak yeneen ak yeneen bëgg nañ ñun tamit ñu dépasser foofu.